Muhammad moyi sunyuyonin koko bagu billahinin bagu nanyula Sayyiduna Muhammad moyi sunyuyonin koko bagu billahinin bagu nanyula koko banko manadon banyu nanyula Sayyiduna Muhammad moyi sunyuyonin koko bagu billahinin bagu nanyula koko banko manadon banyu nanyula Niko bagu niko roinyun yeah. ku ko bañ royuloo ko yorom nañu la ñi ko bëgg di ko roy ñun ñee nañu leen ku ko bañ royuloo ko yorom nañu la alhamdulilah euh, sëriñ Fallou Sow bu moomee laajam bi ñi nga xam ne nga xam ne da koy bëgg génne muurum koor bu fekkee da koy génne ci dugub boroom xam-xam yi dañuy wax ne na ko génne ci la ëpp ca nit ñi di dunde su fekkee pepp li ñuy dundee na ko génne jël ci pepp su fekkee ne lu ëpp ci li ñuy dundee mooy ceeb na ko génne ci ceeb yaakaar naa ne Sénégal moom li ëpp ci li ñuy dundee mooy ceeb kon su ko doon génne tey da koy natt ci nattukaay bi nga xam ne moom la charia santaane loolu mooy saa bopp bu dañuy génneel ko li ñu tuddee saa saa nag ab kalamba la maanaam xeetu àndaar la yu mag joo xam ne ñeenti mudd ñoo koy fees mudd nag buñ ko waxee mooy boore ñaari loxo yu digg doomu nga tibbandoo leen ñoom ñaar sotti defaat ko defaat ko ba mu ñeenti yoon nañ koy xaymaa nag dañuy wax ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw moom moo ko daan natt ci loxoom ñu ne kon mudd bu tol noona moo jaadu mu am mutu boobee nag ittewoo goo xam ne jullit yi ittewoo nañ ko seen diina tax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi daataan fexe nañ ba am ay xeeti koog yoo xam ne wala ay laytan yoo xam ne xame nañ ca muddub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na mu toll nga xam ne sonnatuñ ci ba mu fay jógee ñu di ci sonn waaye dañuy jël àndaar jooja rek natte ko àndaar jooju ba demee ba jëmmi jamono xam ne loolu mënatuñ koo garder muy continuer di dem ñu fexe ba liggéey ay poti weñ yoo xam ne dafa tolloog moom poti weñ yooyu ba léegi am na yu fi nekk ba suñ jonni tey waaye li ëpp solo mooy nga xam pot pot boobu boo ko duyee ak ceeb wala pepp ba mu fees lan lay peese loolu xam nañ ko pot boobu ñu tudd mudd cinq cent dix grammes lay peese maanaam ab liibar bu tegal fukki gramme kooku nag boo ko defee ba muy ñeenti yoon kon day mat ñaari kilo yu tegal ñeent fukki gramme maanaam deux kilo quarante grammes loola soo ko génneelee bopp bu nekk sa jaan wàcc na am na ñooñ nag bañ a sonn ci quarante grammes bi tax na dañ koy def rek ñeenti kilo euh, ñaari kilo ak liibar rek bopp bu dañu génneel ko ñaari kilo ak liibar daal di say noppalu su ko defee miskiin ma ñuy joxit lañ koy jox day yokk waaye du wàññi ko waaye quarante grammes yi soo ko génne moom sa jaan wàcc na bu àndee ñaari kilo yi euh, ci biir laajaan laajaale laajam mi ngi wax ne ndax mënees na koo génne ci xiima mana manees na koo natt ci xaalis waxuma ko it noonu de dañuy wax ne loolu lu mën a nekk la ndax borom xam-xam yu bari loolu wax nañ ko tàmbalee ko ca sax xalifa bu baax ba di Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi taala alayhi santaane woon na ne nañ koy génne ci xaalis ndax la ko waral mooy li tax ñu jekki ba kori jot ñi ñu ne balaa korige ak si gaaw leen joxe seen muurum koor ñu di ko jël di ko jox miskin yi mooy bëgg bu bis boobaa nit ñi nekk ci seenu feet ñoom duñ xëy di yalwaan waaye dañu xëy nekk ci seenu feet ñoom itam bu dee dañuy soli mbubb danañ am luñ sol bu dee dañuy lekk danañ am luñ lekk comme ñëpp loolu nag ka koy jox boo jekkee ba ñu ne weer wi feeñ na nga natt pepp jox ko pep moomee wala ceeb boobee su fekkut mu yor ñaari dërëm ci poosam xam nga ne faaw mu jaayaat ca door caa mën a am lu mu lekk te it ngir mu mën caa jaay ba di ca am lu muy sol nag loola moom du yomb ñu ne kon la gën a jëriñ miskin ma mooy xayma loola nam toll boo xaymaa ñaari kilo ak liibar wala ñaari kilo quarante gramme lu muy jar ci xaalis bopp bu ne nga génneel ko loola jox ko miskiin ma suñ ko ko joxee dana ko amal njëriñ bu waxee ñu ngi koy génneel nag sa jëmmi bopp ci la bokk say soxna ci lañ bokk say doom ci lañ bokk say surga yi nga xam ne yaa yor seen dund sax ci lañ bokk ñooñu yëpp mën nga leen a génnee Usmaan ibn Affaan radiyallaahu taala anhu na bay <coughs> génnee sax ab ëmb boo xam ne dafa ne ci biirub yaayam génneegul mu génne waaleel ko murum koor loolu lépp ngir miskiin yi gën a jëriñu rek هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى